opposition xam nga ban canal nga ah mbedd bi ak presse bi pour wax ak président de la république parce que on n'a jamais voulu nous en tout cas être membre d'un gouvernement et cetera non là ñu ngi dans une majorité dañuy liggéey am na ñu ay canaux yu ñuy permettre ñu wax ak président de la république est-ce que foog ne dañu war a jël micro yi wax ak président tararata non non am amul njëriñ donc bu bu ngeen di euh, apprécier AFP da ngeen koy apprécier sous ces parti de l'opposition ak AFP parti de la majorité naturellement dina am différence paa bi nag xam lu nga koy ñaanal yàlla may gudd fan ak wér parce que quand même c' est un homme d' une grande intelligence. amiin voilà naa ko amiin waaw ñu desandi euh, ba tey ak yow euh, monsieur le ministre maa ngi rappelé sama auditeurs yi on reçoit aujourd'hui le ministre conseiller euh, Zator mbay auprès du chef de l' état mu nekk benn poste boo xam ne sénégalais yi dañ koy dégg rek mais xamuñ lan la le poste de ministre conseiller man dama jàpp ne benn. bonbon bu leen saxal yéen waaye AFP <laughs> la rek. pour ngeen gën a <laughs> mën a toog toog jàpp ni. est nekkul benn bonbon bu leen tax parce que déjà. Euh, nekkoon député nga xam ne quand ba nga nekkee député moom franchement euh, de loon la gis ci hémicycle yi ngay joxe ay euh, ay kii yu am solo les gens sentaient carrément que Zator était présent mais ba nga nekkee ministre conseiller ba tey kenn déggatu la léegi dafa mel ni sax da nga am temps da ngay dem promenade dem Saalum sama dëkk di promener ministre conseiller poste boobu moom ban njëriñ la am non mais xam nga assemblée nationale liggéeyam ak liggéeyu bi may def nii bokkul hmm. Assemblée nationale je suis un élu du peuple euh, les ministres sont là damay gëstu liggéey ci loolu aujourd'hui je suis dans le cabinet du président de la République maanaam la may wax président laa koy waxal parce que man je suis pas le conseil de Sénégalais mais le conseiller du président de la République je suis un ministre en termes de rang mais conseiller du président de la République ki ngay conseiller nag hmm. kooku ngay conseiller moo lay wax ci li nga koy conseiller est-ce que man li ma war a conseil président dama ko war a wax dans la presse gëm loolu ce n'est pas mon rôle aujourd'hui la ma koy conseiller am naa fa may jaar pour wax ko parce que moom moo ma xool na ma def ma conseil heureusement d'ailleurs ba nga xam ne du waa AFP rek et j'ai des homologues ministres yoo xam ne c'est de hommes d'une très grande expérience euh, nekk ñi ay directeurs de banque ñi c'est des financier ñii c'est des gens outillés dans plusieurs domaines nga xam ne dañuy jàppale président ñëpp ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def mais loolu est-ce que nekkul bonbon bi leen saxal rek. bonbon wu lan non bonbon mooy lan je vais dire du question de ah, amul sax ay yenn privilège moi je te donne un exemple aujourd'hui moi je ma voiture sama oto bopp laay dawal maay dawal sama bopp du gis nga ma maa garé sama bopp donc il faut pas que les gens pensent que c'est des choses extraordinaires on est là on est des patriotes. mais est que man je suis jeune j'ai pas besoin de bonbon man xam lu ma xam Dóor waar et puis doxanduma Saloum Saloum dama dem waxtaan ak askan wi. xamal leen programme yi nga xam ne mi ngi am te ba mu demee j'ai vu des réponses concrètes problème mu courant bi parce que mm. dem naa dëkk bu ñu naan euh, dëkk bu ñu naan euh, Ndramé mais ñooñu boo demee timis bokkatuñu ci réew mi dem naa wa wàkk mbàccoo foofu boo fa demee timis ñooñu bokkatuñ ci réew mi amatuñu courant xamuñu glace xamuñu ndox mu sedd waaw ñooñu nga foog waruñoo am loolu. waa sa post ministre conseiller boobu est-ce que yow da nga am bureau au pale man am naa bureau. ah d'accord waaw. kon ça veut bëgg ma invité la sama dama invité la sama bureau. waaw da ça veut dire da gisee mag yi mu lay déglu sa xalaat ak yooyu noonu. waaw waaw dama koy jox suma xalaat. moom tam bu ma bëggee sant dara. Ah, ok mën na ma ko bañ sant directement mais président nag dafa bëri ay collaborateurs. ah bëri ay collaborateur ñoo xam ne euh, yow mii fii ki ko moom mun na la sant dara jaar jaare ko ci keneen voilà waaw léegi euh, ñu avancer euh, monsieur le ministre si mbirum AFP ba tey parce que daf ma ñor AFP. yow yow il faut nga adhérer. non non man du ma adhérer. bàyyi ma on a besoin de toi dans de <laughs> communication. nekk sama. dinaa bi <laughs> rek moom solo. parce que mais nekk journaliste terewul a am opinion ah. dëgg la ah, waaw bàyyi rek ma nekk nii rek. et puis yow tu du Saloum yaa président yéen bokk donc. Euh, produit bi boog yow lu yomb lay def. waaw d' accord prochaine bu ñu demaat Saalum dinañ la yóbbu. incha allahu rabbi léegi euh, man jàngat ñu def euh, benn jàngat bu ndaat waaye AFP 98 AFP 2012 ba AFP fu mu toll nii 2020. Euh, léegi observateur ak ñenn ci journalistes yi sax ñoom dañoo jàpp ne AFP. lu mu perte euh, ci compagnonnage am ak Macky mu ëpp lu mu lu lu lu lu lu mu lu mu gagné euh, mu nekk loo xam ne je je di dis ay fee ak tamit ay euh, kii yëpp firndeel na ko parce que mun nañu wax ne am na jeunes yu quitté seen woon seen parti. ñëw neen instant yi regagner euh, hémicycle bu ku mel ni euh, Malick Gueye bu euh, parti bu seen numéro 2 bi di maali Gakou nga xam ne man dama jàpp sax ngeen ko war a jëli waat ndax AFP <laughs> <laughs> noyuwaat ñu gis tamit élection en euh, 2014 yi euh, si élection municipale yow tamit tenté woon nga sa chance euh, mairie bu Mermoz Sacré-Cœur avec la liste de Benno Bokk Yaakaar waaye kii di Barthélémy Dias tamit da leen faa laminé yu yu yu métti mu nekk ay échec daal ay succession d'échecs yoo xam ne AFP am na ko depuis ba mu nekkee ak Macky Sall yéen en tant que jeune Zator dañuy waxtaan nii nii nii en tant que jeune loolu est-ce que yéen des fois fois doo leen toog am benn pincement de cœur ne ah xaaral ñu dem wax ak para bi ñu ko carrément on peut euh, ne pas être des opposants purs et durs mais ñu ñu retiré wu ndax AFP amaat benn souffle de vie quand même. parce que da nga bëgg ñu nekk un parti d' opposition. non bu leen nekk un parti euh, d' mais ngeen ngeen ngeen amaat lustre d' antan. mais non attendez qu' est qu' est ce qu'on recherche nous c' est la construction d' un pays loolu ñuy am na ñu possibilité joxe suñu contribution suñu participation ci li tax tabax réew mi nga di ñu déedéet bàyyi leen li ngeen di def ngeen delluwaat opposition di sànni ay xeer gis nañu ku mën a tabax ku teg réew mi si yoon koo xam ne ay principe am bokk na ak suñu yoos dafa mel ni tey rek ma ne la yow fi nga nekk ni génn fi nga nga dem wutiwaat beneen liggéey waaw léegi man naka laa la mën a nela la bàyyil sa liggéey bi joxuma la leneen ba pare ne la demul liggéey je pense que c'est pas juste nous on est cohérent avec nous-mêmes nous sommes aujourd'hui dans associé à l'exercice du pouvoir képp ku am choix ne man dama bëgg def sa opposition dama dama bëgg def fi opposition c'est ton choix il faut l'assumer ñun xam la mooy suñu choix nekk fexe ba le plan Sénégal émergent qui va à l'horizon de 2035 au moins Benno Bokk Yaakaar dem ba 2035 au moins laa wax au moins c'est-à-dire Macky Sall su bu demoon ba jeexal Sénégal tàkk ki koy remplacer jóge jóge si benn bokk yaakaar ñun ci loolu la ñuy liggéey waa kooku mën na jóge AFP suba mën na jóge PS mën na jóge ci beneen parti pourquoi les gens doivent penser que ni ñun écoute forcément dañu war a dem nekk et puis dama lay xamal gis nga AFP bi mu bi mu commencé euh, quatre-vingt-dix-neuf AFP coalition la nekkoon fal AFP 2007 alternative 2007 la woon AFP 2012 Benno Siggil Sénégal la woon donc l'AFP a toujours vu a toujours eu une vision d'ensemble waaw léegi ci vision d'ensemble boobu noonu ngeen nekk léegi kon mun nañoo wax ne léegi AFP kay nañoo dissoudre boppam rek ne man léegi APR laa mu jeex. pourquoi ñu dissoudre suñu bopp ci APR. ah comme que da nga ne langaamu rek. tër te ne doo leen bàyyi. non il faut ngeen bàyyi il faut ngeen bàyyi ce terme-là la langaamu. ah pas. langaamu ngeen nekk de non langaamu on est dans une coalition. Hmm. di ci liggéey am ci ay responsabilités di ko assumer pleinement képp daf ñu leneen ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci AFP tey bokk ci ci ci état bi jox leen ci ay responsabilités ñu koy doxal kenn déggu leen ci lu ñàkk fedd loolu moo am solo. d'accord léegi ñu génn tuuti ci AFP ak Macky Sall euh, ñu wax euh, ci wàllum euh, campagne arachidière bi rawatina sax. da nga wax sànq lu am solo lu ma lu ma bëggoon a tontu. mille 2014 yi nga waxoon ci affaire mairie bi. waaw xam nga lan moo ñu daloon. ñun dañoo bokk yaakaar non dañoo tasaaroo. ah mais yii yéen boo leen bloqué ah. sax foofu. Barthélémy Dias moom non bi ñu dajalee dañ raw. non. non xam naa li ma la wax. te bii ñëw incha allah yóbbu ardo ah. ah. da fas yéene nga kii yaat sampaat sa. bien sûr kooku moom bu soobee yàlla moom xam na ko sax. ah kii parce que suñu rêve c'est pas d'être maire suñu rêve c'est de faire notre commune. Zator dóor yi woon na de. yow tamit ñun ay homme politique lañ. ok man li may gis nii def naa presque vingt ans de politique. Hmm. xam politique mooy lan. Hmm. jóg daanu faxasu jógaat dox sa dox am problème. ah ñun ci koom lañ jëm incha allah bu ñu yàlla may gudd. fan de toute façon moom euh, Barthélemy Dias xam naa ne mun lay euh, xaar avec euh, les pieds fermes. mais c' est mon ami tu sais Barth c' est un grand ami sur le plan politique bokkuñu yoon. Euh, xëy na du ñu bokk gis-gis mais humainement c'est quelqu'un de bien. mais danga koy sànni ay pic moom à chaque fois. Barth déggoo li ma la wax c'est mon c'est xanaa xamoon ne li mu nekk assemblée nationale daawul liggéey si xam nga. man maa ko doon liggéeyal donc bu amee temps bu mu war a siéger bu ñëwul man lañ naan sa waa kaay siégel sa copain et je le faisais avec beaucoup plaisir. ok loolu mooy politique. c'est ça ok ñu jàll ci campagne agricole bi euh, ñu nemmeeku coow lu bari tamit ci wàllum euh, euh, prix arachide bi ak chinois yi nga xam ne jàpp ne ne fu mu toll nii ñoom am nañ mainmise bu am solo ci wàllum jënd gerte bi fii ci Sénégal. est-ce que nekkul tamit loolu échec tamit politique bi parce que man je me dis un état organisé parce que man xam naa ne en âme et conscience sénégalais lu mu doon multimilliardaire ñi mewul dem euh, Chine naan mu ngi fay takk xaalisam di dem jëndi gerte wala quoi que quoi que ce soit est-ce que tamit na euh, foofu état bi wanewu fa tamit benn euh, certain faiblesse. xam nga état lan la mën jàppale baykat bi wutal ko jiw. utal ko euh, engrais subventionné matériel am taw yàllaa ko yor kay bay bay génne li déqi li mu bay teg mais su ma demee ba subventionné la jox la samay xaalis jox la samay million non mais saa saa saa état mënta ñëw ne baykat bi tey nga jaay ma sa gerte par force mënta nekk dañoo kontaan ren ci li xew parce que baykat yi gis nañ seen bopp ci lu ñu bay waaw nga bay am koo xam ne taxaw na pour jënd moom juróom-benn fukk te état ne man maa ngi jënd ñaar fukk ak ñaar ñeent fukk ak ñaar. Mm. est-ce que état daf la naan tey nga jaay ma fukk ak ñaar par force déedéet. waaw parce que man su ma jàppoon ne subvention yooyu état di wax parce que ñoom ñenn ci baykat yi ñoom def nañ ay sorties ne ñoom gisuñ subvention ça veut dire que subvention yi état bi euh, mun na ñun joxoon pour ñu séddale ko jaarale wuñ ko ci ñoon man dama jàpp ne subvention yi bu demoon ci loxo baykat yi. état mun na utiliser euh, euh, yat bi ne par la force parce que loolu loolu dafay euh, dafay déstabiliser dëkk bi parce que dafay crise la lay indi parce que benn entreprise bu mel ne Sonacos chinois bu ñu continuer di di di di jënd day tëj non c'est-à-dire pour man les gens vont réfléchir sur d'autres pistes aujourd'hui le Sénégal. balaa ñu balaa ñuy pare chinois yi jeexal gerte bi de. non mais c'est pas grave parce que dama lay wax. c'est pas grave on à l'heure de la mondialisation. chinois yi bu ñu jëndee gerte. mais être à de la mondialisation. mais laisse-moi te dire mais quand de la gerte la ñuy yóbbu mais xaalis lañu fi bàyyi baykat yi dañuy gis seen bopp ci loolu. mais a baax na pour baykat bi de mais baaxul pour état. mais Sénégal ñi ko téye baykat yi la la majeure partie de la population elle est rurale. ñooñu bu yàlla dogalee li ñu bay taxawul seen loxo nit ñi jënd ko sant yàlla maintenant il appartient à de tirer tous les enseignements ci lii te jàpp naa ne. kon nangu nga ne foofu état bi moom lajj na fa. no amul lajj non non non tu sais les politiques sont faites pour être rectifiées. Hmm. àdduna lépp loo gis da ngay def lii essayé ko yow sa première émi émission tey bokkul. ba nga ko defee am na lu la ci neexul nga koy changer di changer di changer c'est ça la vie quoi je considère que ni euh, d'ailleurs l'État c'est c'est c'est c'est c'est réajusté Sonacos njëkk bi muy jëndee mais bu amul woon loolu xën na Sonacos du def loolu mais li indi loolu mën na indi leneen parce que nag àdduna rien n'est figé rien n'est fermé donc je suis persuadé que l'État est en train de de voir cette question de de plus près d'accord incha allah euh, ñu dem si wàllum dialogue national bi mu nekk dialogue boo xam ne euh, tey mun nañu wax ne tey titre euh, journaux yëpp wàllum divergence bu am si ñaar ñu ko ñu ñaar ñu jox pour ñu jiitee dialogue bi moo ko indi dialogue bi commencé gul sax ñu am ay problèmes yu ñuy soulever loolu est-ce que nekkul ne. des fois je avant les bœufs. je me méfie des rumeurs parce que loo xam ne fekkewuma ko nekkuma ca. donc vraiment des fois nga gis dans la presse tu peux quinze mille choses. <laughs> mais mais mais mais na nu euh, fonctionné wu na sur la base de rumeur journaux yëpp titre ko non mais mais. gars man mi la wax j'ai fait keneen ak keneen noonu. souvent ya a des fake news ah yoo xam ne dëgërul et puis même bu loolu amoon sax que ni ñaari nit ci benn dialogue jubóowuñu mais c'est c'est bien heureux parce que dialogue mooy dañuy waxtaan. waxtaan gi ñuy waxtaan ça pas dire que man li may wax da nga si d' accord sànq laaj naa la ndax li ma wax d' nga si nga ne ma d' accord aussi terewul ñu ngi ko ne di waxtaan non est ce que da nga est ce que da nga d' accord rek nga ni dagg naa émission bi non on discute on trouve des compromis dynamiques je pense que euh, c' est de grandes personnalités président ñi mu tànn ñëpp ñi nekk ci dialogue bi ñëpp koo ci xool jaar jaaram rek am na lu tax ñu tànn la fa donc je suis persuadé solution dina d' accord euh, ñu desandi ba tey euh, si dialogue national bi man euh, dama jàpp ne bon dialogue national pour man je me dis dialogue politique la parce que fekk si c' nationale national baykat bi day toog ouvrier bi tooy toog toutes les forces vives de la nation toog. est-ce que dialogue bi nekkul euh, benn euh, mascarade politique bu ñu de teg rek euh, pour politiciens yi mun a def rek seen dictat comme ni ñu koy defee mais dialogue est bien national béykat yi am nañ fa représentant CNCR a nga fa classe sociale boo jël rek am na fa représentant dafa am une partie qui s'appelle dialogue politique kooku parti politique yi société civile ñoom ñoo ko moom majorité opposition ak non aligné ñooñu waxtaan nañ d'ailleurs looloo indi ñu dàq élection locale yi mais lii nga xam ne mais est dàq élection locale yooyu. non dama ne moo taxoon ñu def dialogue bi. non non non non non non c'est un le dialogue il national mais yéen journalistes yi am am ngeen fa représentant. <laughs> oui vous avez un représentant là-bas ak ñeneen ak ñeneen maa ngi gis fii le maire de Dakar nga xam ne mu nga fa au titre des des collectivités locales donc boo xoolee pàcc bu nekk. am na ñu nga xam ne représenté nañ leen pour ñu ñëw indi seen gis-gis ak seen xalaat dialogue nag waxtaan la waxtaan amul pouvoir de décision parce que décision bi nag kenn ko moom muy le président Macky Sall luñ ca waxtaanee rek ba tënk ko moom lañ koy jox parce que nag moom la Sénégalais yi fal ñu ma ñu la ñu keneen moom lañ fal moom sax moo ne nanu dialogue ñu bëri sax ñu ngi naan est-ce que jaroon na ko jaru ko mais moom ci doxalinum ouverture inclusion moo ne nanu waxtaan waxtaan sur toutes les questions et puis on trouve des compromis parce que dialogue nag loolu la aussi ah kaa ñu waxtaan moom amul dorante amul saagante dañu waxtaan rek mën nañoo juboo mën nañu bañ juboo mën nañu bañ a juboo tey juboo ëllëg mën nañu bañ a juboo ci lii juboo ci lee je crois que c'est pas plus compliqué d'accord waaw euh, ñu avancé euh, tuuti euh, ñu gis la coalition la collectif ñoo lank ñoo bañ demoon neen seeti kii di maître Abdoulaye Wade yow ban lecture nga am si loolu tey yow mun nañu wax ne man ba ma gisee image yooyu dama jàpp ne c'est seules les montagnes qui se rencontrent jamais parce que Abdoulaye Wade mun nañu mun mun naa wax ne moom électrique problème euh, Sénélec sax moo taxoon <laughs> Sénégalais yi euh, wanoon ko gannaaw tey moom muy wax ci wàllum yokkuteef électricité bon des fois tu comprends pas tey collectif ñoo lànk ñoo bañ nga xam ne ñu ëppoon ci ñoom sax ñoo xeexoon kii di euh, président Abdoulaye Wade yow ban jàngat nga am ci mbir xanaa jàngat bi ma ci am mooy li nga ci wax rek. je n'en dirai vraiment pas plus ah je n'en dirai pas plus parce que li nga posé question sax da nga question bi. Euh, su fekkente ne les gens ont des positions ki fluctuent qui euh, qui changent d'un moment à l'autre parce que euh, mënu ma ne yow démb da nga bon tey man yaa fi gën en tout cas jàpp naa ne àdduna warta mën a demee demee noonu quelles que soient les circonstances nag démb ma ne la yow ku ban nga tey ma ñëw tàggale ne yaa fi gën dañu ni dañu war a xool sama waxu démb bu tey ban moo ci baax et bon voilà maintenant nag c'est c'est dommage que dans pays là il y a gens yoo xam ne xëy na noonu la ñu gisee àdduna Abdoulaye Wade nag suñu maam la ñu ñëpp naka yàlla may gudd fan ak wér. moom ñoom est-ce lii dafa regagner rek euh, seen wax euh, parce que ñoom nee na xeexuñu doon la personne d'Abdoulaye Wade mais système est que nekkul système boobu ñu doon xeex si Abdoulaye Wade tey moom lañ gis eh, moom lañ bëgg a instauré c'est pas vrai système bi lañ c'est pas parce que ñi koy ñi naan ñi ngi xeex système ban système la ñuy xeex fii dans ce pays là de 2012 à maintenant amu fi loo xam ne rek lañ doon xeex si Abdoulaye ñëpp ko doon xeexandoo ak ñoom tripatouillage de la constitution des coupures intempestives euh, d'électricité dëkk bi amuloon courant jeex na constitution bi laaloon nañ ko presque vingt six fois bu ñu ba bu ñu bàyyi woon bu ñu xeexul woon xëy na tey jii Karim Wade mooy nekk président fii ci réew parce que dañu jëloon def quart bloquant ba yóbbu ko vingt cinq pour cent ba pare daal di indi euh, vice président ci constitution loolu la doon xeex loolu amu fi tey émission bu mel nii munoo ko woon def mu jàll te courant du coupé sant yàlla. bu ñu eggee ba foofu lépp loo gis nag ci àdduna dafa am njëg sama yëre bii moo gën a yomb sa veste bi nga sol man maa choisir na yëre bii laay sol yow nga choisir jënd sa veste deux cent mille am nga ko mën nga ko voilà je crois que nit ñi aussi fokk des fois ñuy. ñu bàyyi xel ci loolu. waaw pour finir euh, monsieur le ministre euh, un petit mot euh, sur la criminalisation du viol Sénégal gis na ne à l'Assemblée nationale euh, voté nañ ko mu am ñenn si ñoom nga naam sa voté nañ ci mais am nañ euh, benn petite réticence par rapport à son application. tu sais toutes les lois bu ñu leen di voté dana am toujours loolu. Mm-hmm. parce que gis nga bu état di doxal di xool loi bu baax. pour régenter dëkku nekk nekkinu nit ñi nga gis ay sambabo yoo xam ne pendant ce même moment ñu ngi xool ñoom fu ñuy jaar pour wër wër loi boobu pour ñoom doxal li ñu bëgg doxal donc c'est c'est c'est la vie qui est ainsi faite c'est une loi boo xam ne dana am ñu mu décourager c'est clair ñi nga xam ne loolu moo doon seen liggéey dana am ñu mu décourager euh, mais mën na am aussi ñoo xam ne dana nekk porox ndoll ci ñoom pour ñu régler ay compte parce que àdduna bee demee noonu ah da nga si gis peut-être benn couple ngeen xuloo nga ni nii violé na ma nangam sangam parce que lépp loo xëy rek teg ko pour jubal am na ku nekk si wet gi mi ngi koy xool pour dëngal donc mais heureusement ba euh, député yi seen rôle mooy voter loi il appartient maintenant à la justice d'appliquer intelligemment cette loi. mun nañu wax aussi c'est venu à son heure parce que viol yi rey dafa bëri woon trop Sénégal. mais bien sûr moo tax on l'a on l'a bien salué mais bon comme toutes les lois fii loi boo fi teg rek di nga gis ku la ne c'est pertinent c'est pas pertinent mais jàpp ne comme tu dis c'est une excellente loi parce que dina dina corriger lu bëri et je crois que c'est bien heureux pour les femmes mais pour les hommes parce que góor <laughs> góor bu ñu violé de xam naa ne ça ne court pas les rues moom. am na mais am na hier j'ai écouté un magistrat qui expliquait cet cet aspect. ah bon ah bien sûr ah ni ñuy violé jigéen ngay gis aussi jigéen bu ñëw fekk góor violé ko ah. Ah ah bien sûr en tout cas xam naa ñoom ñoom du ñu dénoncé wu. ah non mais parce que xëy na dañu bëri sutura rek dañu am kersa. waaw euh, monsieur le ministre dafa mel ni lu ñu cëraloon euh, si waxtu jeex na. boo amee ay waxtu euh, sa dernier mot rek. xanaa gërëmati leen rek vraiment jéggalu ci tarde bi parce que xaw naa yéex nag ndax dëkk bi faut tourner chantier la. moo tax ma xaw a yéex. parce que nekkul ne tali yi ñoo bëriwul. ça nekkul euh, dëkk bi moo awgul sa si yoon ni dem bay émerger. non xam nga lu muy prouver dafa prouver ne dëkk baa ngi si yoon parce que bu oto yi bëree. waaw waaw waaw monsieur le ministre balaa ñuy tëj sax clean clean day bi ngeen inno euh, slogan bu bees bi ngeen def ni tamit clean day bi tamit. un petit mot rek ci clean bio. mais c'est une excellente chose. d'ailleurs waaw c'est une excellente chose mais waaye ouais, vous avez mis aussi les charrues avant les bœufs. c'est-à-dire da ngeen waroon def ay euh, poubelles def ay mesures d'accompagnement nga xam ne. Euh, nga xam ne carrément fu ñu tourné gis ay poubelles lu tax ñu bëri am na ñoo xam ne euh, ñu ñu santut bi tey ak yooyu ñoom seen pu seen seen saag yi moo nekk seen poubelles yi. de ce nit yi dinañ bëgg a euh, suivre la mouvance mais euh, des fois c'est un peu compliqué est-ce que nekkul ne da ngeen waroon teg affaire yi ba pare soog a instaurer les choses. xam nga président il lance une une idée. no président moom ay slogan rek lay joxe nag non non non clean clean nañu defar suñu bésu bésu set setal. non moom c'est une très bonne chose bàyyi ma ma ñëw rek c'est-à-dire moom s'il lance une idée comme ça il appartient au pouvoir locaux ñu approprié wu ko. on a aujourd'hui cinq cent cinquante sept collectivités locales maires yi tey mbirum mbirum bale sa buntu kër c'est une affaire de proximité même si l'État aujourd'hui à travers le ministère ak ay UCG ñu ngi ci góor góorlu mais maires yi ñoo ci war a gën a xar seen tànk tubéy. mais mairie Sénégal yi dee neen de. amul moyen de non non am nanu moyen. Hmm. dañu jël seen moyen di ko def feneen. Hmm, yaa waaw dañu jël seen moyen di ko def ci ay voyage di ko def ci ay yu ñàkk fayda yoo xam ne population yi duñ teg seen bët parce que maire yi bu ñu jëloon cette question là au moins boog ñu ne mankat koñ bi dinaa ko boog dalee wala dinaa fa def pavé parce que xëy na boo pavé suuf dootul wàcc nga ni man dinaa wut ay mbalit mbalit lu muy jar cinq mille francs dix mille francs est-ce que maire yi maire mënul ne mankat kat je de cent poubelles def ko ci koñ bi foo ko tas ñu gis ko. waaw d'accord ah, monsieur le ministre. et cette stratégie là ben nous on se l'approprie hein parce que nous on, est en train de mettre en place les les boys. Ah qui vont accompagner le cleaning day. Inch'Allah. voilà <laughs> merci le monsieur le ministre. ça a été un plaisir. Euh, de te recevoir sur le plateau de Sénégal 7. c'est moi et je vous félicite encore une fois de plus. Euh, di ñaan rek euh, télé bi jëm ca kaw ci kanam. incha allah ànd ak plan Sénégal émergent. <laughs> incha allah rabbi merci aussi à vous euh, auditeurs yu Sénégal 7 euh, si déglu beeg seetaan bi saa su ne merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'ont accompagné pour la réalisation de cette émission rendez-vous très prochainement ak beneen numéro ak beneen invité grande interview sur la scène. sur Sénégal 7 merci